sport ak euh, Mamadou Ndiaye waxtaane traversée euh, Dakar Gorée ça s'est passé ce week-end. effectivement Pape Cheikh moo nekkoon 30e euh, édition traversée traditionnelle traversée Dakar Gorée ci 5 kilomètres 200 mais ren surprise lañ ci gis parce que ki nga xamante ni mooy Thiaw Ndir moom mi nga xam moo ko jëloon daaw. deuxième la jël ki ko jël di Amadou Ndiaye mi nga xamante ni 16 ans rek la am moo ñëw euh, daal di gagné traversé Dakar Gorélu ren nga xamante ni def na ko 1 heure 10 minutes euh, ci wàllu jigéen ñi ki nga xamante ni mooy Ndeye Tabara Diagne moo ko jël moom tamit 19 ans nekk BCAO mën nañu seetaan élément bi nga xam ne jëlee nañ ko fa tëj. nañ sant parce que vraiment organisation bi ñi euh, ñi kontaan nañ parce que boo déggee témoignage yu ñi nga xam ni ñoo egg si vraiment da am mbégte parce que mbégte. mooy euh, euh, bu nit ñi kontaanee rek ñu xam ni ñun suñu traversée euh, kontaan nañ di di remercier parrain bi nga xam ni mooy le premier ministre di di di joxe hommage suñu suñu mag Karim Thioune mi nga xam ni lu ne la def ci natation. alors je m'appelle Amadou Ndiaye Antonessi donc mon père est sénégalais il vient Saint-Louis ma mère est française. Donc je suis venu pour la compétition. Enfin euh, je suis arrivé vendredi et je repars demain soir. Et donc bah, très serré. Euh, j'étais côte à côte avec euh, l'autre nageur, Chaolin, Chaolnir. J'étais côte à côte avec lui pendant toute la course. Et juste à la fin, ça joué sur le sprint final. Et c'était vraiment une très belle course. Et vraiment bravo à lui. voilà donc euh, traversée bi moo tax sànq ma ni mën naa fee ñoom ñu ne mënuñu euh, moo tax je vous promets euh, lundi prochain yeewu leen spécial ci benn plage décidé guñu ko mais vous verrez on se réveillera avec vous ci benn plage bu nekk fii ci Dakar en attendant donc lii ça s'est passé le week-end génnal ci man. effectivement mais lundi rek waaw matin du matin. ah nañu bàyyi Baltine. 5 kilomètres 200 ci ndox. waaw ah soo loolu am naa benn xarit bu ko def ak papa euh, François Litia. Ah. monsieur Litia papa moo inscrire. il a hmm. plus de 60 60 60 ans 65 ans. oui oui moo inscrit mais ils l'ont fait 2 heures plus minutes. Hmm. mais il y a eu paraît-il beaucoup d'erreurs de navigation en fait. donc euh, y a des y a des y a des axes yoo leen attaqué pour mën a arriver. parce que courant bi ak effectivement ça joue beaucoup. Mhm. donc ils ont fait beaucoup de d'erreurs. Euh, de, navigation mais néanmoins yegg nañu quoi ñoom. mais deux effectivement deux heures nii rek. <laughs> effectivement démb démb y avait un qui qui qui ah. la ñu doon expliqué que ni démb vent bi boo ko jëlee ngay contourner euh, direction bi. non man du ma ko weddi de lu mu wax dëgg la waaye nii rek. démb nii bari ki démb nii tey tamit nii ay ah, yow lan la noyel xale bi dem wax moom it lim ci xam moo ko préparé xalaas mais ak li ngay nooy nii yëpp. <laughs> waaw ko si génne oui d' accord vas-y effectivement Pape Cheikh noonu la demee plus de 600 nageurs bari woon na ñi nga xam dañ ciy participer mais ay ami tamit li ñu ci gën seetlu bari na xale yu ndaw yi nga xam ne tamit participer dañ ci traversé Dakar Gorée bi. xale yi mais démb interpellé naa Gorée parce que li ñu ci seetlu li ma seetlu ñuy bari ay yu bari. dëkkatuñu nekkuñu Gorée te d'habitude dañ doon gis ñu bari ñoo xam ne ay Goréens lañu. Mm. ñu xam naa ci guddi nañ ko gën a yaatal. Mm-hmm. Euh, wax naka la demee woon ak surtout surprise bi ci am euh, ci ñaari. gagnants ay waay ex yow tamit bàyyi ko mu àggale ci lii lii ba jàmm la képp sa gémmiñ geeg sa kopp ñu àggale balaa ñuy ñëw ci yow on te retrouve tout à l'heure ferme ta ta boîte camembert et euh, on te retrouve pour Elzo de l'art xaw ma Omzo Dollar donc loolu mu ngi xewoon week encore ces nageurs on en parle euh, tey ci guddi ci sport à la une euh, en détail et puis euh, sama rakk ji laa fekkoon Everton Baye Omar Niass. effectivement démb Baye Omar Niass actuellement ah magam dañuy def tabac fu ñu ne. mais bu ñu fàttali ko tuuti ci jaar jaaram bu mu xawoon compliqué fële ci Premier League ak club am Everton. ak ki nga ah. xam ne mooy coach am bii hmm. woon ñu yóbbu ko ci xale yi mooy de ans yi parcours boobu yëpp def ko. actuellement nii mu nekk ci début saison bu am solo. sérieusement parce que en 35 minutes mën nañu jàpp mu dugal. Euh, doublé ou trois buts la mais ci euh, coupe bi. maanaam mhm. ci semaine bi dafa dugaloon beneen bi bu nga xamante nekkoon euh, lu am solo ci club bi. en tout cas mi ngi nekk ci dynamique bu baax ñu ko koy souhaité. di ah ko ko ñaanal mu gën a continuer ci ah dynamique bi. Ah parce que nekk na ci yombul nga jóge fu metti jaar jaar bu. Mhm. ci sport dañ koy gis lu bari. Mhm. mais nga ñëwaat toujours garder le cap bu nekk au sommet nekkul li nga xam te mu gën a continuer ci dynamique bi. voilà Baye Oumar Niass c'est un frère. Mhm. nous on l'aime tellement. donc on est content d'avoir de bonnes nouvelles. Euh, ci moom euh, bi nga ñu ko waxee euh, il a fait notre fierté donc on lui souhaite encore bonne chance. ak club boobu di Everton keneen koo xamante ni dafay def fierté ñu ñii di ko def tamit Sénégal surtout ci club ba mu nekk mooy Cheikhou Kouyaté Moussahra. national bu Sénégal lu ci yoonu Zahra ci information yi ñu joxe. <laughs> yow tamit xamoo journaliste bu ngéwéle. <laughs> mesdames mesdemoiselles et messieurs le mari de Zahra a marqué des buts. <laughs> noonu la waroon demee rek. effectivement Cheikhou Kouyaté ah. capitaine équipe nationale surtout bu nekk ci moom tamit ci dynamique bu baax di début saison bi actuellement bi moo nekk premier bi yoon bi nga xam ne dugal na ko ak euh, West Ham club donte ñàkk ci dëgg devant Tottenham. 3 euh, buts à 2 waaye moom euh, def na prestation bu am solo surtout ci moment bi nga xamante ni ñi ngi waaj a ñëw regroupement ci hmm. préparer match euh, Cap Vert Sénégal dugal na hmm. bi bu am solo ci week-end la question que tout le monde se pose pourquoi tant de tabac ci seen ay club et pourtant fii Sénégal on a besoin ah euh, de de victoire et de coupe ci suñu équipe nationale bi pelouse bi la climat bi la voilà non effectivement ci leur a posé la question

oui ils se connaissent ils se connaissent ay xale la ñu dañoo cool ñoom ñëpp xamante nañu ah. xamante bu baax. tu que peut-être peut-être parce que tu sens hargne bi nekk ak ñoom dañuy ñëw ak fitu gaynde wallaahi da nga koy gis jom non fitu gaynde du perte. c'est vrai. boo amee ah, hmm. fitu gaynde yenn lay jox par exemple li ñuy nekk regroupement li ñuy du nekk lu yàgg. équipe nationale xam nga sélection la dañuy woo fii di woo fii di woo fii di woo leen bu fekkee yi ngeen joué da ngeen di yàgg yéenay nekk yéenay nekk chaque bien vrai que moo tax na am na groupe ñoo xamante yàgg na ñu si bari ku ci mel ni Cheikh Kouyaté ak euh, Idrissa Gana Gueye ñu si nekk bari na ci ñoo xamante ni euh, ñoo xamante ñoo bokkoon même centre formation donc bu ñu demee ba retrouver équipe nationale li ñuy soxla mooy entente beeg yooyu am na kiiw na am nañ groupe bi nga xam ne entente am na ci boo gisee ñoom ñu mais est-ce que en général seen fi ñuy jouer seen ay club bu ñu ñëwee c'est c'est les mêmes postes qu'ils occupent parce que temps yii déggoon naa benn coow par rapport ak. oui le plus souvent ok même même poste yi la ñuy garder mais ñenn ñi parfois coach yi tamit dañ leen changer. Mm-hmm. dañ leen changer mais surtout ci mm-hmm. condition la nag. parfois bu ñu leen changer c'est parce que dafay dafay nekk euh, équation yoo xam ne il faut être mm-hmm. pratiquement. Euh, donc c'est ils n'ont pas de chance au Sénégal. mais dans dans le club peut-être peut-être peut-être après match Cap Vert bi inch'Allah. coach moom nañ ko invité. voilà on leur souhaite bonne chance en tout cas pour match bi nga xamante ni ñoom gaynde yi war nañu ko amal ak euh, euh, Cap-Vert ce sera si je ne me trompe pour le octobre euh, voilà ca Praia capitale bu Cap-Vert sinon Ismaïla bu weesoo Baye Oumar Niass ak Cheikhou Kouyaté Ismaïla moom dafa blessé démb. xaw na tiital ñu bari moo tax lu mm-hmm. Eh, bi muy retrouver équipe am bi nga xamante ni pare woon nañu match ay bekki la yoroon mais nee na li ñu ci gën a ay bekkee yaakaaroon waaw dañuy yaakaaroon ah, danga ko ne becco faut bien prononcer les mots bekki ay bekki yi <laughs> faut bien prononcer oui j'ai cru entendre becco ay bekke. c'est parce que c'était dans ta xam naa becco moo nekkoon sa xel. et c'est un lapsus révélateur. c'est un lapsus révélateur. c'était dans ta ah, non non non yenn saa yi nga bëgg a wax dara. affaire bi nekk sa xel. nga génne ko c'est un lapsus boo xamante lapsus boo xamante ne Mamadou Ndiaye moo ko wax. et c'est un lapsus révélateur. sa xel nag bu nekkee ca yi fi becco da ngay dem nga lijjanti ko ki lay wan bi t'a demandé de wax ñu waxtaane sport is Ismaël euh, euh, dañu ko gis ak ay beekee. <laughs> voilà demal <laughs> ah, demal Mamadou léegi ñu dem ci li tax beekee yi mooy match yi. match dem bi dafa blessé euh, diggante nga xamante ni joué nañ lu toll ci 36e minute bi ci lañ ko daal di gaañ mu daal di génn. Hmm. mais liñ ci liñ ci gën a jàpp rek mooy tey la ñu gën a xam résultat yi fan la nekk mais liñ ci gënoon doon tiit maanaam ay fracture ak yooyu. Euh, coach bi euh, joxe na confirmation ne que ni yeggul foofu yeggul li nga xamante ne ay gaañu gaañu voilà en tout cas ñu ngi koy souhaité bon rétablissement bu ñëw euh, retrouver équipe nationale. ben oui c' est tout ce qu'on leur souhaite. li ñu dundoon ak ñoom El Hadj Diouf ñoom Fadiga et tout ça. Exactement. on a très envie de vivre ça avec ces jeunes ouais. garçons. am nañu envie dund ko ak Baye Omar Niass am nañu envie dund ko ak Cheikhou Kouyaté Pape Alioune ñoom ñëpp. Mhm. Kulim da ngay juum mais on leur souhaite encore bonne chance le 7 octobre incha allah ñoom ñëpp daañu daje pour jouer. contre euh, Cap Vert ñu ngi leen di ñaanal ñun ñëpp euh, fii ci euh, télévision Futur Média merci beaucoup en tout cas Mamadou Ndiaye pour ces infos yi nga ñu jox c'est vrai que week bi ku ci seetaanul programme sport yi boo xëyal matin Mamadou Ndiaye daf koy yaatal en attendant guddi gi comme chaque lundi ci sport à la une on retrouve team bu Mame Fatou Ndoye